génn woon ci euh, liste bi nga xamante ni rek di su doon partim euh, donc bu nga xoolee ni juge bi tam ba mu jugee itam ne Ousmane Sonko nañ ko delluwaat ci liste waaye tamit jox leen seen fiche de parrainage euh, kaw Ousmane Sonko bi tam nga déggaat tamit grève de la faim bi nga xam ni rek da ko reprendre ban jàngat nga ci am. waaw li may wax foofu d'abord tamit delluwaat di ko masaw di ko ñaanal suñu borom teggi ko natt yi ba mu delluwaat ci njabootam ndax Ousmane Sonko Sénégal da koo soxla. Euh, di féddaliwaat solidarité am ak président El Hadj Malick parce que El Hadj Malick tout le temps mu wéet mu mu mu wéetali koog yëpp xelam mi ngi nekk ci président Ousmane Sonko parce que frère am la rakkam la te séq nañ lu bari nag dama koy wax nit ñi ni leen ñi ci mbedd mi ñooy wax waaye ku ci mel ni président Ousmane Sonko ku respecté El Hadj Malick Gakou la parce que xam na bu baax kan mooy El Hadj Malick Gakou El Hadj tamit ku respecté Ousmane Sonko la parce que xam na bu baax kan mooy Ousmane Sonko nit ñi ñooy jaxase rek. et nit ñi dañoo war di maanu gis nga Sénégal dafa toll foo xamante ni nii defar la ñëpp war a def tollu foo xamante ni dañoo war a xaajale sénégalais yi te loolu nag léegi dafa bëgg a bari Sénégal nañu nañu bàyyi ñuy def nañu bàyyi ñuy def di wax nag ne euh, président Ousmane Sonko dañ koo tooñ nañ ko jox ay fiche ñu dem pare ne gis nga nguur yàlla moo koy joxe kum kum ko tudd ci yow nga jot ko wax jee bari rek mais yàlla moo koy joxe. nañ ko jox ay fiche dem nañ Ziguinchor juge bi jox na ko dëgg nañ ko delloo ay fiche loolu mooy dëgg beneen bi ci topp nag mooy grève de la faim bi man personnellement li may wax dem man la engagé man su ma mënee ñaan président Ousmane Sonko mu bàyyi ko dama koy ñaan forme de lutte na nag looloo ko dese ci xeex mais man maa ngi koy ñaan mu bàyyi ko parce que xam nga li tax soo jàkkaarlook ñoo xamante ni nii euh, à tout moment ñi ngi lay fexeel da ngaa war a dëgër këj fas yéenee jàkkaarloog ñoom waaw parce que bu grève de faim bu yàggee daf lay sonal man de bu ma sañoon li ma koy ñaan en tant que frère en tant que mag bu ma sañoon mu bàyyi moom grève de la fin bi ndax dañ koo soxla ci Sénégal parce que bu dul dara am na lu mu def ci Sénégal lu baree baree bari parce que tey bari nañu daawul wax ci politique nekk ay xale daawuñu ko lijjanti mais tey suñu demee ba ñëpp intéressé wu ci politique ba ñëpp intéressé wu ci suñu ressources yeeg yëpp grace à président Ousmane Sonko kon nag loolu mu ñu defal bu mu ko xeeb bu ko xeeb. kon na taxawaat amaat ndëgër laay mu lekk di naan lii nag man maa ngi ko koy ñaan en tant que frère waaw. Fodé Mbow mu mel ni waxtu bi dab nañu euh, kàddu bi ngay tàggatoo xam naa daañu waat incha allah fas yéene amalaat yaatal bu mag a mag a mag waaye tam xam naa tam euh, boo moytu est-ce que duñu amaat ak euh, rendez-vous ca pale ba am interview ak yéen foofu parce que moom moment bi yéen loolu ngeen gis nii yéenay cinquième président incha allah loolu ngeen gis looy tàggatoo. waaw di wax rek ne nañu ubbi seen bët bu baax a baax a baax ubbi seen nopp bu baax a baax a baax te xamante ni naxaate bi bari na wax ji bari na waaye suñu Sénégal bu ñu ko sàggane ñun ñëpp ñoo ko moom ñun ñëpp ñoo ko bokk te dafa jot nag ñu jël président El Hadj Malick teg ko ci bopp réew mi ndax li tax président El Hadj Malick mooy seul leader bi nekk Sénégal boo xam ni am naag ñëpp jàmm te mën naa woo ñëpp ñu ñëw ñu dajaloo mën naa waxtaan ak ñëpp te mën naa def ak ñëpp te soxlawul alalu réew mi ndax yàlla suñu borom dimbali na ko mi ngi tedd démb te tey dikkul kon dimbali sénégalais rek moo tax président El Hadj Malick Gakou bëgg a xar tànk tubéyam ñëw accéder au pouvoir pour dimbali sénégalais yi sénégalais yi xiif nañ sénégalais yi sonn nañ xale yaa ngi jël géej gi ñii ngi jël yoonu Ecotra bi fu nekk ñu fay dem ñenn ñi bu ñu añee du ñu reer sénégalais yi métti na inscription sax nga xam ne moo gën a ndaw pour parent yi defal ko seeni doom lu metti la te jàpp naa ni loolu président El li gàkku Gakou rek moo ko mën a saafara kon nañu bàyyiwaat xel bu baax a baax ki ñuy tànn ak ki ñuy dénkaat suñu réew te jàpp naa ni kat mënul nekk kenn ku dul président El Hadj Malick jërëjëf Fodé Mbow euh, mbokku téléspectateurs yi mu nekkoon sunu gan seen jotaay noo ko jàngatee euh, tam actualité yi nga xam ne dañ koy waxtaan mbirum politique euh, muy coordinateur jeunesse bu grand parti commune Ndiarème Limamoulaye di président mouvement Penccu Askan Wi moom la ñu dalaloon di ko sant bu baax ci disponibilité bi mbokk yi itam di leen xama rek seen jotaay noo ko jàngatee lewoon ngeen ci ànd ak seen mbokku taalibe bi Mouhamadou Lamine Muntaxa di leen jox dig daje ci beneen jotaay ci beneen plateau ak beneen rek koo xamante fas yéene nañu waxtaan ak moom ci candidat am dafay nekk loo xam ne lu solo la kon